salaam salaam nuyu naa leen ziar naa leen bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si kenn ku si nekk waaw man nag maa ngi tudd uh, Adja mhm. waaw mais série Madior bi ci laa bëgg a séri bi parce que man ma wax dëgg yàlla temps yi moom yi fiy daw yëpp mën naa ne xool buy tàng laa si jële xol buy tàng daal laa si jële parce que man mënuma comprendre toujours rek jox euh, kii yaama ak yaayam di am euh, kii saa su ne ñoom di am ndam victoire di yenn victoire bi saa su nekk pour man daal loolu mënul nekk parce que nit sax ñun ñii sax parfois dañuy am ay problème yoo xamante ne day tar loolu si ñun parfois mu neex torop donc pour man mënuma gëm na ne nit war na di mën a di am li kay neex saa su ne joor euh, maa joor euh, kii yaama ak yaayam yaama tiit na mais euh, kee naar jóob naar yëgul sax li xew mu ngi tëdd fi mu tëdd sentirul dara si yaram di bëgg a rayluwaat keneen ki des donc pour man daal changement war na am parce que man moom sama classe yi gëw mën a dinaa mën a ti continuer te di mën a di seetaan action yi parce que naar mën na toog fee def li muy def dara fekku ko si ah père ma xaw ma papa magam jooju xam dëgg bi fi mu toll nii te naan ka du toog di seetaan tànk maa ngi dund du ma toog di seetaan sama benn famille di dem kaso kon donc moom ça veut dire que ne bi mu doon wax si diggante moom ak yaam yaama male yaay joo donc du dëgg mbëggee mbëggeelam du dëgg parce que man mënuma imaginer nga ne nit ki danga ko bëgg ba pare tey lii arrivé que nii yow nga xam sens bi lan moo ko waral te defoo benn effort dëgg la sa rakka la tamit rakka la tamit avant tout bakken moo gën a fort bakken moo gën a fort te et beneen bi alalam bi fi mu ko jëlee war nañ ko lijjanti tànkam boobu lan moo ko indi loo war nañ ko xam yooyu yëpp maa joor nag benn côté moom tamit dafa xaw a naïf trop moom dafa xaw a naïf parce que moom depuis le début gisoon na conséquences yi yëpp gisoon na yi yëpp mais dafa waroon a jël responsabilité am depuis avant parce que tey tey man nit ki moom bu ma la xësee ba sib sone moom sama dara dootuma la si dootuma la si wóoloote donc pour man foofu noonu xaw na faa nelaw daal ah mais série bi nag neex na torop mais man daal lee moom ma si xaw a déranger daal. Mhm. salaamaaleykum maa ngi doon wax si émission bi ci xalaat li ma ci xalaat moom bi passé mooy maajoor ak joor mooy yaay joor ak yaay maajoor ay seex lañ seexu yaayu maajoor moom lañ ki nappe moom maajoor suñu ñaay yaay ñu bokk ndey waaye ay seex lañ ne loolu laa xalaat salaamaaleykum salaamaaleykum man la Italie waaw maa ngi siibuur seen film bi bu baax a baax a baax macha allah apprécier naa leen bu baax tamit waaw surtout comment dirais naar rôle bi moom joué na bu baax mu koy apprécier bu baax encore peut-être rôle bu xaw kii la mais lu mu lu mu lu mu maanaam joué bu baax euh, maa ngi apprécier tamit tama ñeen ñëpp parce que ñun ñëpp rôle bi yëpp joué nañ ko normal macha allah daal ñu ngi ko joué macha allah dernier film bi benn affaire moom si xaw a choqué tuuti man xëy na duma ma du ma seet film moom seetaan rek laa si xam feuilleton seetaan rek si xam xaw ma si lu bëri mais man pour man benn affaire moom si xaw a choqué nu police bi ñëwee jël si joor parce que man pour man nit su nee dafa feebar. te nga xamoon nga te moom ba kooku ñëwee si police bi def déclaration waxoon na que ni xam na joor bu baax kon moom xam na joor kon c'est-à-dire que nit su defee benn mbir yaa a quelque chose kon waroon na amee beneen comportement bu mu ko jël see bu dul façon comportement parce que da ko humilier loolu man pour man humilier loolu rek moom ma xaw a tout si film bi mais leneen li si des lépp joué nañu rôle bi normal normal normal normal. waaw du ma nag bindkatu film du ma kii mais macha allah daal maa leen apprécier bu baax a baax a baax a di leen wax tamit fa ngeen ko teg foofu la macha allah ñun moom dañuy man moom damay seetaan film bi à tout moment xëy na su ma ko seetaanu aussi en direct suma ko seetaanu direct bi damay xëy wàcc su ma ñëwee naa ko seetaan du ma raw daal l'essentiel au début parce que instant nii waaw amul lu ma si raw maa ngi leen si apprécier bu baax a baax a baax a baax a baax a baax mais tamit en plus tamit xëy na film bi noonu noonu la mënoon demee xaw ma li si topp après mais actuellement nii fu ñu yem nii nii nii nangu ma woon maire bi dee man personnellement du ma nangu maire bi dee parce que lu tax man dama naan nit dooru dund si benn souffrance ba xëy dee non non chaque jour war nañu wane benn exemple boo xam ni maanaam nit suy souffrir. mu ngeen wan benn exemple boo xam ni day wa da da ngeen ni da ngeen ni wane benn exemple boo xam ni man su ma ko xoolee dafa may may euh, jom bi nga xam ni damay damay fond damay dama dama si dama si dem ba jeex quoi wan xam ni dana mës a ñëw mais tey jii bu dee nit ko souffrir rek yàgg-yàgg si dee mujje kon ñun ñi nga xam dañuy souffrir xëy na dañuy xaar ñu tamit si dee gi la ñuy mujjee maanaam nit fu muy souffrir rek war na fa am lu neex tamit encore xëy na nag lépp mën na ni àddina am na ñuy souffrir ba xëy waaw loolu dama koy nangu mais dama bëggoon tamit maire maire bi dem ba am bànneex parce que gisa dundam lépp laa fam yëpp mën naa ni moom moom kese la cundum loolu rek dafa metti xamul famem loolu rek dafa mu dem si ba dee si noonu xamul si xamul famem xaw metti daal macha allah mais macha allah daal rôle bi yëpp def ngeen ka normal waaw naar moom tamit kasaalika joué na am normal waaw yaakaar naa joué na ko normal dëgg yàlla te maa ngi si apprécié waaw bu baax a baax a baax parce que joué normal waaw maa joor tamit kazaalika joué na ko normal yéen ñëpp daal macha allah waaw chapeau daal.